jëf jëf sëñ Tuuba doo jaay mukk sa bopp kon ñoo ngi di wax wax ji amul solo la ñu gën a ko leeral ci ngeen xam li ëpp solo mooy jàpp leen ci ñi xam ne ñu baax suñu jëme réew mi réew mi gën a doon réew jàmm réew moo xam ne kenn du solo toog réew moo xam ne kenn du si jaay doole réew moo xam ñu baax Sénégal yëpp daal ci seen bopp ci réew mi réew moo xam ne jigéen ñi ndaw ñi daal ci seen bopp. daal yàlla may na ay wërsëg wërsëg boobu dafa kii ba kii ñett yi ñu seen bopp jox na nag lépp loo xam ne alal bu sëriñ bi alal jooju ñett yi seen bopp yam ma ko te bépp bopp Bahia, meu pai Portugal, meu pai Miguel Europa, essas foram as entradas para mim. Eu tenho que me associar à minha vontade, a musicóloga, a musicóloga, para a disciplina. Eu estou sem dentro do territorial, a musicóloga para a disciplina. La Comisión Nacional de Educación Social

Sénégal waa bitim réew ñoom sax ñu nekk Sénégal. jamono boobu soo soobee ak ñeneen état bi dafa fay diine ji mën a àgg ko yéen it dama ko taw jàppale ko ndax ñu amul lu dul diine ji dinaa taxaw benn ministère bu mag boo xam ne ministère bi souverain bi mooy doon mooy yor mbirum diine ji mooy toppatoo daara yi lu tax ñoo jàppale te xool li ko ñu jàppale daara yi jaaduwul danaa fexe ba ci biir daara yi ñu ngi jàng jàng métier su ci jàngee métier jàng alxuraan jàng xam-xam ñëw gën a am sa métier soo liggéeyee daa doon bu am njëriñ pour sa société ba pare yàlla dimbali ma valeur yi nga xam ne société sénégalaise daf ko gëm valeur yooyu bu bëri nekk ci man bu may def ngor laa ciy dund ak jom bu may def nag laa ciy dundal ko yéene ma ne yéen ba ngeen defal Yep. belediye elektronik yasası sözüme kampanya, sayına kampanya. Fii laa ko doore. avant ma ñëw dëkk bi gëm na génn dëkk bi fii laa ko doore jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërëjëf jërëjëf.